ab phénomène la ñu nemmeeku fii ci Sénégal ginnaaw bu ay ndaw toogee ci seen ginnaaw téléphone di wax ak publier lu leen neex à travers les réseaux sociaux ginnaaw bu ko Kocce lëmbee Sénégal kii di aadamoo nag moo jël wàllam ndax bu ñu nemmeekoo kaaw ak njoletaal ak ñeneen ñu ni mel moom aadamoo nag day saaga ak wax lu ko neex ci Instagramam ak TikTok ñenn ci sénégalais yi jàpp ni aadama moom le ñii di sénégalais yi ñoo ko may li nga xamante ni mooy doole. ba tax na suñu sunu gaal 24 wàcc ci mbedd mi laaj ñenn ci askan bi mbir moom moomule naka lañ ko jàngate jàngatee. asalaamaaleykum <laughs> ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw sant man nga ñu fàttali tur bi. ah abu la abu. abu d'accord ñu gis benn phénomène bu bees maanaam toog ci sa ginnaaw téléphone wax lu la neex di saaga nit ñi te dara du la si ñu gis xam ne mooy Adamo ñu naan ko le boss des gis ngeen li muy waxal instant bi nit ñi ah ku ci mel ne joletaal ak yeneen ñoo xamante ni mënuñu leen lem ah, phénomène boobu ñu nemmeeku Sénégal ndax nga ko jàngatee. waaw man dama jàpp ni yenn yi mën na ñàkk daal ci réew boo xam ne ñun ñëpp ñoo war en plus ki ngay wax loolu sa sa sa borom jullit ñoo bokk fi ñu dëkk en plus déjà dafa am yoo xam ne ñun Sénégal ñu intéressé wuñu njoolee bu bu ko xaw ma Sankara Mbaye moo ko moo géey rek ñun ñooñu intéressé wuñu quoi lépp lu def ñoo xam kooku ñoom suturaaluñu seen bopp na yem si ñoom mais ñun Adamo moo xam Adamo di saaga ak waxi ñaaw xamul ne Adama moom xanaa amul ay parents. non loolu moom du lépp loo xamante ni lu nice la quoi. kuy def dara wala loo xamante ni dafa ñaaw ñoom da nga ko ciy encouragé di reetaan mu koy gën a def loolu nag lañ fi war a jëlee quoi. mu mel ñoo koy dooleel. waaw mel ne sénégalais yi ñoo koy dooleel ndax chaque jour koo xam ne day taxaw di saaga di wax ay wax joo xamante ni rafetul naayasul kilifa diine yi di wax am na ñoo xam ne loolu dañ ko war a interdire sax ci Sénégal mais Sénégal jal benn nit teg ko ci exemple bu baax mais ñoom duñ def loolu dañ koy gën a ràngati li muy def mu koy gën a yokk ah mais comme ni ko Sénégal yëpp jàngate parce que tamit maanaam xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam te ni maanaam xajul ci yenn yi quoi xam nga nekk bitim réew toog yor sa téléphone di wax du la neex xam nga ci dëkk boo xamante ni maanaam xamee ñu ko yenn genre waxe yi comme toog di saaga xam nga parce que Sénégal bu yooyu ñëpp yamuñu kenn ku nekk ak ni ngay gisee kenn ku nekk ak ni ngay xalaate ak kenn ku nekk ak tamit ni ngay maanaam sa gëm-gëm dëgg la nag li muy def benn part bi xaw naa ko cay condamné mais benn part bi maanaam man gisuma si gisuma si njariñam quoi parce que boo xoolee la majeure partie ni mu koy ni mu koy ni mu koy attiré maanaam góoma sax man yenn genre yenn genre parole yooyu noonu parce que boo xoolee des fois mu dugg xam nga directam ay saaga yoo xamante ni amul benn njariñ ndax jàppoo ko ni sénégalais aussi am nañ ci part responsabilité bu mag boo gisee nañ koy toppee ci Instagram yeeg YouTube yeeg yeneen réseaux sociaux bien sûr parce que parce que maanaam sénégalais ñu ko mën naa sénégalais maanaam bu yow ñoo ko dooleel. non rafetlu moo ko moom wax dëgg yàlla parce que tey jii nit man je pense que yow nga nekk nit waroo teg sa moroomu nit loo xam ne da koy metti wala da koy kii. tout dépend nag ci éducation bi ñu bi ñu la ak maanaam xaalis bi nga bëgg à travers les réseaux sociaux maanaam da nga koy yokk xaalis te xaalis boobu noonu moom da koy jëriñoo yow doo ko jëriñoo mieux vaut nga toog sa toog calmer sa calme nga suivre li nga war a suivre parce que tey jii ku nekk am na li nga war a def yow yaa ngi nii une journaliste voilà ba soit sur liggéey mais munoo def leneen loo xam ne di suivre ay saaga saaga lu mu lay jëriñ pas man loolu nag laa amoon lu may wax tu vois parce que rafet rafetlu ñu ko quoi. parce que lan nga koy moi je le connais pas personnellement quoi à travers benn extrait vidéo am la seetaan ba yaayam naan ko bàyyi saaga mu ne ko loolu si la parce que sa yaay ne la bàyyi saaga nga ne non saaga yi mënu ma ko bàyyi benn extrait boobu mais lu ma koy wax nit la comme yeneen nit góor yàlla la maanaam góor yàlla moomut loolu quoi en fait di saaga yenn respect dépassé wul yenn kii quoi en fait. Zolos tout d'abord balaa ma wax man damay ñaawlu nit yi tey ni ñu jàppee internet ndax internet du yàq der mais nga xam te yàq der la nekkee ci ci réseaux sociaux yàq der lañ ko mën tuddee ndax wóoruñu ndax koo xoolee tey comme kaaw Ndiolé Tall muy wax si Ndiolé Tall loo xam te ñun wóoruñu en plus lu muy wax si Ndiolé ñu amul benn intérêt Ndiolé Tall moo def li moo la après ça sert à ñun dañ koy fay wala yàq der boobu noonu après moom da cee am intérêt ñun on comprend pas daal ñun ñun quel pays nous y sommes ñun comprendre nuñu ndax yàq der yàq der nit yi pour faire plaisir aux autres def naa tamit mooy sul bukki sulu bukki yàq der pour pour pour pour bégal ñeneen ñi mu mel ci wàllum showbiz bi dafa am ñoo xamante ne tey boo ci amee sa ennemi da ngay fay ki nga xamante ne mooy Adamo la boos na ko yàqal mu diw mu yàqal la ko ndax nit ñi tamit jotuñu ñu yeewu ci mbir moom la waaw tamit xam nga tamit vie showbiz dafa xaw a métti maanaam boo boo siwee rek mooy loolu moomatoo sa bopp comme tey kaaw Adamo Adamo moom ndax ñu siiw rek lay jël jëlu sama genre yi nga xam ne siiwuñu tey di yàq der wala boog di di di takk man takkal laa ko mën sax ndax diw def na ak ak keneen loolu biam la tey moom mu ngi def loo xam te ne bëggul ko wax dëgg neexul ñun ñu ngi def loo xam te ne bëgguñu ko wax dëgg neexul mais tey mu xool ñoo xam te ne dañoo am buzz ñun tamit ñun Sénégal ñun ndax tamit dëgg neexul kii taxaw fee wax waxi dof waxi dof laa ko mën waxi Pawlish waxi dof ndax waxi dof lay def tourné waxal kee ñun waaw lu mu wax dëgg la après foofu Sénégal ñëpp dem abonné man de man damaa part personne sama abonné lay xaar na ko de doom yaa du laal de ah, avant tout d'abord euh, damay nuyu waa Sénégal yëpp Euh, di wax ne que encore une fois ne ko ñun nañ comprendre ne que ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi quoi en parce que fii suñu réew la ñoo xam nga mënuñu ko mënuñu ko séddoo ku nekk tamit dañ ko def kii xam ñun ñëpp a fois ne que li muy def moom man ama part dama koy wax mu que rafetul parce que ñëpp benn lañ xam nga Sénégal lañ dëkk tey amaana sax keneen moo ko war a a def ñun ñu ñëw jël défendre ko mais pas ñun Sénégalais en même temps ñu yàq yàq der suñu deru morom ñu mel noonu bu dee bës moo tax mu koy def amul benn sens quoi bës du dara lépp fii lay yem àdduna la rek quoi xam nga lépp ëllëg moom moo mat a ku nekk da nga defal sa avenir ngir ëllëg parce que loolu moo man dama jàpp ne loolu ëpp importance quoi mais pas ngay jël sa morom di koy yàq wala genre yu noonu. ku nekk tey comme ni ko sama gars yi waxee rek ku nekk yaa loo xamante ni tey sa vie privée la bëggoo ku la ko waxal moom mi ngi def loo xamante ni tey amaana tey nit ñi sax ñu siy dut te ku bëri nañu daal ñuy wax. yaayam jox na ah, loolu li mu def noonu lu rafet lu lu rafet lu la parce que sa doom ak yaay dafa jege si xol te amaana tamit yow li nga yàq si deru doomu jàmbur yaayam di ko dégg du ko si xol kon donc yaayam tey bu génnee wax c'est normal mu wax quoi voilà foo mu wax mais tamit nañ comprendre benn affaire fii kenn du fi dof ñëpp ay nit lañ lu waaye def lu nekk moom moo ko tey quoi. waaw amoon rek Sénégal moom mooy loolu yoo xam nga ni mu demee des fois nga def benn affaire ñu naan non. tey ko lii moo ko dal wala. est-ce que aussi sénégalais yi ah, ah, ah, sénégalais yi sax laay wax amuñu ci part de responsabilité ndax mënuñu fekk nit koo xamante ne du wax ay bêtises rek lay wax nga abonné wu ci moom di ko topp bu dee Instagram nga topp ko YouTube fépp nga ko fay topp est-ce ñoom it amuñu ci part de responsabilité bu mag. mais si ñoom boo xoolee tey tey lépp lépp la bu ñu amee doole rek c'est parce que ñoom la parce que ñoom ñooy abonné ñoom ñooy vue xam ñoom ñooy aimé loolu noonu tey dafa mel ni ñoom dañ koy rafetlu ñoom dafa mel ni loolu noonu dafa nekk loo xam ne lu am importance la si nit ñi man man déjà man yooyu man parfois man dafa am yoo xam ne daf may neex quoi daf may neex maanaam du saaga mais dafa am yoo xam ne suñu Sénégalais Sénégal dafa bëri ku lu koy neex am ñoo xam ne ñuy wax ay wax yi ay wax kii moo leen nekkoo quoi day day day soulager mais yooyu pour dire vrai amul amul njëriñ. dëgg fa mën nga si ree soulager la neex mais amul amul après amul suivi amul njëriñ. c'est parce que ñi koy reetaan ak ñu koy seetaan rek ñoo koy dooleel mais ñu ko defoon comme man man moom yàlla xam na ni kooku duma ko seetaan duma ko def dara dama koy dégg ci réseaux sociaux yi mais nekk lu nice quoi ñu gën ci bàyyi xel. parce que Sénégalais ñuy dugg ay directam parce que bés boobu noonu joomi am xam nga naan ay 2000 vues ak 2000 nangam 2000 nangam Sénégalais maanaam ñoo dama jàpp dañoo matul. parce que bu fekkoon voilà ñoo bëgg yëfi dof parce que loolu maanaam yëfi dof laa ko jàppee. parce que Adamo reewante dong moo ko jàpp ngeen baam ci kàddu reewante dong dong moo ko jàpp parce que toog fi mu toog di wax lu ko neex man gisuma loolu lan la mën a apporter Sénégalais parce que yow boo nekkee bitim réew di danse doole daa war a am maanaam beneen comportement boo war a mais toog di saaga n'importe kii yow tey nga saaga président bi suba nga saaga keneen ak keneen mais loolu noonu maanaam lan la ko mën a apporter. jamono ji ñu toll lan nga koy ñaax. xanaa mu bàyyi saaga mi nekk ci kii bi rek nga mu bàyyi ni muy kii bi parce que Adamo dafa Adama dèjà dafa réew moom boo ko état bi nag mënta lijjanti man mii man mën naa kaa lijjanti man personnellement xam nga man bu ñu bàyyi Adama rek man man su ma jëm bopp man mën naa kaa lijjanti mën naa koo ñuus ba mu tëdd xam nga Adama nit ñi Adama yéen lay am yéen nga mais man yàggu ma xam nga li may wax daal fekkee sénégalais mënuñu ko lijjanti man bu ñu ko bàyyi ak man naa ko ñuus ba mu tëdd man maa wax rek. Adama yow laay waxal bu fekkee maanaam sénégalais mënuñu laa lijjanti man Cheikh Waly mën naa lijjanti sama numéro téléphone 77 232 28 51 bu ñu ko mënta lijjanti ku ma woo man ma lijjanti Adama man personnellement. waaw nit kuy sosal nit moom loo xamante ni amul kooku moom yaakaar naa ne boppam la koy def ndax nit koo xamante ni yaa ngi koy nit lépp loo koy seedeel da ngay fekk nga seedeel ko ci loo xamante ni teg nga si sa bët mais di juger nit ki loo xamante ni tegoo ko sa bët loolu baaxul loolu suñu borom sax bëgg ko. waaw waaw presque waaw mën naa ne pour pour buzz parce que soo bis xam nga am buzz daal man daal man daal man daal mon pays va mal daal waaw waaw métti na ma trop Adamo xaw ma di ma dégg xaw ma di nga ma gis. ngir yaa war su bàyyi leen deru jàmm yi ngeen yàq te Ndiolé moom nga xam ne amaan dëgg la dëgg xamuñu wóoruñu waaye Ndiolé am na am na famille am na papa am na yaay ah am na mag am na rak am na jëkkër am na doom na bu xoolee si ñoo ne war na ka mën a sànq sutura tamit. tey ñun dañoo war a def loo xamante ne tey képp koo xamante ne jug nga comme que Assane Diouf pour Diouf pourtant lim jug bi muy jug di wax da moom Sénégal lay xeexal te bu kaa moom muy taxaw di saaga ñu jël ko tëj ala ko keneen di ko def te mënuñoo jël dar si kaw ñooy noonu kon fan la nekk ñun ban monde lañ nekk tey waaw di wax ni góor la góor yàlla la gentleman la yi mu def ni amul benn der amul benn sens war na mën a xam nga amee leneen buzz dundul yàq der fii ñeneen ni ku si nekk yaa ngi am buzz ci loo xamante ni yàqoo deru kenn te exemple bu ne cité ñu bëri mais duñ cité tey na bàyyi lii xam ne tey ñu ngi yàq seen der ñii ay xaritam la wala ñii amoon nañ moom connaissance ñii ay jigéen lañ ñi ñoo xam ne jigéen du ko yàlla a teral suturaal leen te am na sax kenn comprendre ñu ñu ngi koy naqaru daal bu mu bàyyi di ko ñaale mu bàyyi maanaam lu naan bës lu maanaam jigul nit maanaam ku am bës rek moomatoo sa bopp ku am bës moomatoo sa bopp tey jii bu dee bës ngay ut demal nga uti ko feneen wala nga uti liggéey wala du genre yooyu noonu te Sénégal li koy jëmale kanam pour ñu naan émergence émergence nekkul bës en fait la ñàkkul daan sa doole yow yaa ngi nii di liggéey keneen ak keneen bu dee aadama moom noonu lay liggéeyee yow nga bàyyi koog noonu mu mel en fait voilà Sénégal bi